asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen rajo Baol Média mu nekk information yi gën a fës ci affaire Ousmane Sonko. yéen a ngi déglu Baol Média FM. ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall nag convoqué na Félix Diome ak maître Malick Sall pour ay information yu gën a leer ci affaire wu Sonko jël na mbir mi nag au sérieux moom ki nga xamante ne mooy président de la république di Macky Sall ndax mu ngi wax ñenn ci ay jegeñaaleem ne xamuloon ne mbir mi dafa am complot dafa bëgg rek li nga xamante ne mooy affaire Sonko ñu réglé ko si ni mu gën a gaawee ndax dal dellu siwaat si réew mi loolu nag ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides moo ko ko sant bu ñu fàttalikoo nag Serigne Mountakha Bassirou Mbacke gannaaw ba mu dalalee ki nga xamante ne mooy Serigne Abdou Mbacke nekk jegeñaale Ousmane Sonko ci la amee waxtaan ci téléphone ak ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ci la ko waxee lii ñëpp yaa leen boole jaboote bul nangu réew mi tax ci say loxo ci la ko Macky Sall tontoo ne ko dinaa def lépp lu ma mën pour dal dellu siwaat ci Sénégal procédure yëkkati mbalaanu malaanu kiiraayu usmaan Sonko maanaam immunité parlementaire am li nga xamante ne mooy commission bu loi bu l'Assemblée nationale moom bopp bi ab réunion pour désigner membre commission ad hoc ñi nga xamante ne ñoo war a chargé wu ci procédure yëkkati mbalaanu kiiraayu député bii di Ousmane Sonko député ya fa daje nag tànn nañ ci coalition Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ne mooy Demba Baba Yel Sall Mame Bounama Sall Pape Biram Touré Aji Mbergane Kanouté ak Mously Diakhaté Mamadou Wuri Baylo Diallo Yee Mandiaye Ba ak ki nga xamante ne mooy ay meeru ñing li concerné ñi nga xamante ne inscrire wuñ na ki nga xamante ne mooy Fatma Ndiaye réew mi moom nag retenir lañ ko ko kantaan nag groupe parlementaire u liberté et démocrate yi ñoom nag ba tey communiqué guñ benn tur loolu nag moo nekk xibaar yi gën a fës ñu jox leen dig daje beneen yoon incha allah jërë jëf